mbuus yi dugg na seen biir ba génnaat waaye daa mel ne yëgaguñ ko de daa mel ne yëgaguñ ne mbuus yaa ngi fi te ci la bokk nag waxoon naa ko léegi ma waxaat ko mbuus yi di ñëw ci seen biir xam ne boo amoon dara ci doole defal ko lislaam boo ko ci defee jàppe nga ko ci combat bi ndax loxoy kese naku ci béy te nag gars yi yoruñu budget boo xam ne mooy financé ndaje yii kon na mbuus yi ñëw ngeen jàpp ci bu baax a baax ñu ànd jox kàddu bi bi nga xam ne mooy Dame Mbodj mu joxe participation ci bis bi asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu yépp kenn ku nekk ci turam ak ci sant tey nag mbégte mu rëy rëy laa am ndaxte biñ fiy dajale nit ñi ci mois de mai bennu génn tey lii nu am ful na ko ñett wala ñeent wala juróomi yoon kon wone na ni sénégalais yi am nañ pas-pas ci li ñuy def am nañ taxawaay ci li ñuy def kon nag maa ngi nuyu kilifa yi fi daje yëpp di ko teg ci loxo suñu coordonnateur Ababacar Mboub mu jàllale ko ci ñëpp ndax bu mag la ndaxte temps bi xat na te mënuñoo lim waaye damay wax.